Cheikh Tidiane Cissé maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax a baax. alors ngay secrétaire généralu euh, béykat yi nga xam te nag ñoo nekk ci bassin arachidier bi euh, jëwriñ bi nga xam te ne moom lañu lépp lu jëm euh, ci wàllum agriculture muy docteur Mabouba Diagne jot na fixé nag njëgu cession engrais yi waaye tamit lépp lu jëm ci wàllum subvention bile ci campagne agricole 2024 2025 ana lan moo ci sa jàngat. waaw euh, euh, yaakaar naa ne ni ñuy wàññi prix engrais bi rafetlu nañ ko parce que wax dëgg yàlla boo xoolee ni monde rural bi tëddee nga xam ne euh, yëf yi métti na tar na ndax li ñuy wax ne année ren bi dafa tar partout mais ci monde rural bi la ëppee ndax boo koy xool Covid bi fi jaar dégg ngeen coow li ak li fi xew dégg nga booleeg dégg nga campagne de commercialisation bi presque gerte gi jënd nañ ko ci prix yi bon ba léegi am na lu fi des. booleek da nga maam situation économique bi ñu toll je pense que ne suñu wàññee prix yi engrais bi euh, nit ñi dinañ ko rafetlu jaakaaroon nañ sax mu ëpp loolu waaye nag euh, li ñuy wax ne euh, bu yoon jeexul waaxu si du jeex yaakaar naa ne ëllëg si biir dinañ ko gën a dinañ ko gën a wàññi. Hmm. li ñuy wax nag ci biir loolu mooy que ne engrais bi moom gisaguñ ko déggaguñ ko mais li ñu gën a jaaxal mooy jiw wi aussi gisaguñ ko déggaguñ ko te jiw bi tim aussi xamaguñ prix bi ndax engrais bi moom xam nañ prix bi mais jiw wi amuñ euh, xamaguñ prix bi te loolu dama yaakaar ne jiw lu am solo la te ñu ngi gis nit ñaa ngi bindu. xamuñ nan li ñuy bindoo mu nekk jaaxle bu nga xam ne jaaxle bu ëpp la ndax euh, booy bindu te yow li ngay bindu dégg nga maam ñu ne individuel ngay bindu euh, baykat yi ñu ne waaw mais loolu fi mu nekk nii ak li fi nekkoon lan mooy différence bi ndax li fi nekkoon sax gënul li nga xam ne moom lañ bëgg a def nii. Mm-hmm. te fi mu nekk nii taw baa ngi nii gën a bëgg a jege. Euh, soreetul ñuy bindu te dara ñëwagul balaa ngay bindu da koy war a yóbbuwaat nan lay ñëwee. ak ñaata lañ ci nit ñi di am ndax ñuy bindu aussi ñoom ñëpp ci àll bi lañ dëkk ndax ay baykat lañ parce que ku dëkk ci àll bi ñoom ñëpp duñu ay baykat donc yaa vraiment jaxasoo jaxasoo bu nekk suñ bopp yu nga xam ne dara daal daal xaw na lëmbee suñ suñ suñ xel yi. mu mel ni vingt deux pour cent lañ ci wàññi ndax euh, loolee doy na. waaw damay wax ne nit ki moom wax dëgg yàlla li mu am dina ko sant yàlla waaye nag euh, je pense que ne ak fi mu tolloon euh, ak rupture bi ñu yaakaaroon ne yëf yi dina ko gën a doxee yaakaar naa ne mënoon nañu gën a wàññi parce que man dama mës a défendre ne engrais moom euh, dañu ko war a subventionné trois ans successifs daf politique d'évaluation maanaam wàññi ko ba moins de cinq mille francs daf politique euh, d'évaluation maanaam xayma ko ci ñetti at yi ci rendement yi pour xam lan la ñuy indil ci politique boobu parce que bu boobaa dinañ mën a yokk fuul suñu production bi ba nga xam ne ëllëg ak lépp lu nga xam ne mébétoon nañ ko ci souveraineté alimentaire ñu mën koy am bu boobaa nit ñi mën a dund lekk naan et puis de nga maam li ci des ñu man koy dégg nga maam yóbbu bitim réew nga xam ne subvention bi ñu ci doon dugal peut-être bu demee li nga xam ne bitim réew la muy indil ñu xaalis bu boobaa subvention bi doo ko yëg mais ba léegi finalement foog naa ne nit ñi déggaguñ ma ci situation boobu te foog naa ne tubaab yi noonu la ñuy def parce que ñoom seen producteur yi dañ leen di dooleel dafa leen subvention ñu def production yi mag ñu ñëw jaayee ko Afrique jaayee ko feneen ak feneen ak feneen kaay boobu buy dugg donc ñoom duñ yëgati subvention bi donc je pense que ne loolu war nañ ci xalaat ak économiste yi. alors li jëm ci wàllum phosphate bi tamit gis nañ ne subvention bi def nañ ko à cent pour cent euh, lan moo ci nekk réellement. waaw phosphatage bi je pense que ne loolu lu am solo la parce que suñu suuf si léegi dafa dee te loolu ñëpp nangu nañ ko parce que boo xoolee euh, côté Louga beeg euh, ci kaw presque fi mu nekk nii gerte kenn mënatu ko fay ñoral ak yenn xeetu njeef yi donc je pense que ne euh, suuf si dee na donc yaakaar naa ne bu ñu defee programme de phosphatage lu am solo la mais phosphatage bi dafay nekk programme bu nga xam ne pour juróomi at la pour nga yaakaar am suuf su xam ne da nga maam da nga ci am yaakaar pour mu dellu si at léegi nag ñu suñ problème mooy ne euh, ci liñ dégg ci euh, ak ni ñu ko yaakaaree ne noonu lañ ko déggee dañ ne phosphate bi da nga maam daf nañ ci lu nga xam ne alors moom mooy ëpp doole engrais bi te dañ koy maye c'est loolu am na solo mais problème bi mooy ne engrais ak phosphate dañ nekk ñaari choses yu nga xam ne bokkuñ doxalin parce que phosphate bi pour dellu si at suuf si la mais pour juróomi at la mais béykat bi fi mu tellu tembe tembe tembe mooy mu am engrais mën a yokk fuul da maam li nga xam ne moom lay bay donc su nekkee ne ñoom dañ jël engrais bi wàññi ko ci prix bu nga xam ne dégg nga maam béykat bi dina ko jënd moins chair mais ñu jël phosphate bi dooleel ko te engrais bi du bëri je pense que loolu mooy indi spéculation maanaam lu tuuti rek te nit ñi di ko xëccoo dafay cher bu boobaa wàññi wàññi bi ñu wàññi je pense que mën nañ ko ñàkk gis giseel bu giseen bu nga xam ne da nga maam bi dina ci mën a gis boppam parce que bu tuutee ba cher wàññi ko si supposons sept mille francs wala six mille cinq cent tey jii ñu indi ko mu bëriwul nit ñu di ko jëndee quinze dix mille bala douze mille je pense que ne sa wàññi bi dana xaw a doy waar. Mhm. alors li jëm ba tey ci phosphate bi ci la ñuy des ndax trente cinq mille tonnes lañ ci def ñu distribuer ko nag euh, producteurs yi euh, loolee euh, ban jàngat nga am ci situation bi li waaw xam nga trente cinq mille tonnes fi mu nekk nii gisu ko benn doomu phosphate. te phosphate bi da nga ko war a def bien avant da nga maam hivernage bi di commencé hivernage bi soreetul hmm. donc programme yi dafa bari bari bari bari bari bari te benn ñëwagu ci benn gisaguñ ko ci te taw bi soreetul te li ci bëree bëri bari ko dafa concerné taw bi phosphatage bi dañ ko war a jot balaay taw bi di jot ñu sànni ko ci suuf si labouré ko suuf si da nga maam mu ànd ak suuf si man a ànd mais léegi boo ko jotee ci biir taw bi presque lan la lay dikkal xanaa dañ koy programmer pour nawet bi wàccee parce que trente cinq mille tonnes léegi pour nga distribuer ko kañ lay ñëw kañ lay agsi mais ça pose énormément de difficultés mon ma ma ma hmm. alors jëwriñ gi nag moom jot naa nag euh, ordonné ne faw ñu taxawal fii euh, lépp lu jëm ci réduction inégalité genre maanaam jigéen yi nga xamante ne ñoom tamit ñoo ngi bay seen waar euh, ci wàllu mbay mi loolu ban jàngat nga am ci dogal gi mu jël. waaw yaakaar naa ne loolu am solo la parce que la loi agro-sylvo-pastorale am na lu mu ci wax. ndax état dafay xool da nga maam di amandé chaque an chaque euh, peut-être euh, diit bu nga xam ne da nga maam moom lay xool pro programme de politique am euh, agricole mu xool lan moo ci manqué da nga maam mu joyante ko mais fi ñu tollu tembe jigéen ñi dañ nekk ñu nga xam ne fi mu nekk nii dañ am solo ci agriculture bi te dañ leen desaloon gannaaw jigéen ñi xeex ci am ñu leen ci jàppale vraiment ba ñu àgg ci niveau bu nga xam ne tey jii dañ ne ñoom dañ leen jox suuf parce que képp umpalewul ne jigéen ñi dañu am sens de responsabilité bu nga xam ne bu am solo la fi mu nekk nii ci doxalinu àdduna bi ndax ñoom dañu nekk borom kër dañuy yore njaboot danga ma war leen di yore yore seen seeni soxla aussi war koy def donc ba pare nag nekk ñu nga xam ne aussi dañu am capacité pour liggéey aussi donc ñooñu dafay nekk devoir pour ñu jox leen suuf pour ñu liggéey donc ci anam boobu vraiment on n'a rien à mais je veux dire que ne euh, état bi je pense que ne li mu boole sumb leen yëpp ba pare di déglu fépp je pense que ne gars yi ñu ngi koy dugal ci situation bu nga xam ne lépp dafa laajaat ñu def programme bi passé programme nawet bi ba nawet bi passé ñu toogaat nag simb leen nga xam ne danga nga dañ ci mën a toog waxtaan ci nit ñi jox seen kàddu ñu ñi am nañ ci kàddu te on est disposé à wax ci suñ kàddu mais li nekk à l'état actuel du programme bi nga xam ne moo taxaw focus bi c'est l'hivernage de cette année-ci nañ wax ci hivernage ba lépp pare hmm. après ñu xool pour un an de réflexion mun nañ indi lu bare bare bare pour amélioration des membres de la politique agricole alors njiitu réew gi nag ba Bassirou Diomaye Diakhar fay jotoon na def ab visite dem ca foire internationale euh, de l'agriculture et des ressources animales di FIARA euh, wax nag lépp lu jëm ci solo su euh, mbay mi ban analyse nga am rek booy def ci visite googu waaw ñoom wax dëgg yàlla boo koy xool seen yéene rafet na wax dëgg yàlla bëgg nañ yëfi yi changé bu baax ndax lépp bëgg nañ ko delluwaat ci baykat bi ndax loolu la seen yéene nekk te wax dëgg yàlla loolu lu am solo la ndax lu ci bare bare bare bare du doon àgg ci mbay mi léegi nag ñoo moom ci li ma dégg mooy ne dañuy seet li nga xam ne tey jii moom la ñuy def ndax dox naam ndax doxul bu doxee ñu gën a baral seen tànk pour gën ko defaraat jooyanti ko ba mu baax bu doxul nag da nga maam ñu tëggaat lu nga xam ne ëllëg ak si biir danañ mën a jooyanti lu nga xam ne ëllëg ak si biir ak pooleeg nit ñi ñu xool li nga xam ne moom mooy doxal loolu yëpp je pense que des bases de travail la bu nga xam ne bu am solo la ndax euh, réew mi euh, agriculture rek ko mën a doxal ndax réew yëpp agriculture la leen doxal surtout nag suñu réew yi nga xam ne fi mu nekk nii dañu am problème de souveraineté alimentaire maanaam lekk ba suur naan ba màndi te loolu bu ko nit daful du mun a sotti eh, te li ñu jotee bitim réew di jël ko foofu di ñëw des fois nga uti ko doo ko am mais des fois mu ñëw cher cher bu nga xam ne dafay jéggi dayo eh, nit ñu duñ ko mën a jënd je pense que ne defar lu nga xam ne ëllëg si biir doo jéggaan ni lu bëree baree baree bëri te ba pare xaaj bi di des ci réew mi di tourner ci biir réew mi lu am solo la donc loolu vraiment eh, ñu ngi ko ci gën a encouragé di ko ci gën a ñaax mais ñu ngi koy wax ne ko nañ gën a tey ba li passé da nga maam ñu def lu nga xam ne lu am solo lay doon. alors fi mu toll nii nag yéen jafe-jafe ngeen di jànkonteel maanaam béykat yi. jafe-jafe bi daal wax naa la ko léegi. Hmm. nee naa la ne semence ak engrais ñoom ñooy lii nga pilier yi nga xam ne moom mooy euh, matuwaayu baykat pour l'instant am na yeneen yu ci war a tegu phosphatage ba ak ceeb matériel agricole bi mais fi mu nekk nii semence ak engrais mooy li ki ne këtt ne jonn comme ni ñu koy waxee donc semence bi engrais bi nañ ñëw. nu mu gën a teelee parce que fi mu nekk nii taw bi soreetul tey le vingt juin tey le vingt mai te début de juin ñii yaakaar nañ ne ak ni ko ANACIM waxee maanaam météo ni mu ko yàqaaree yaakaar nañ ne dinañ am ay taw te loolu benn benn yembagu ci semence bi amaguñ prix bi semence bi ñëwagul te nit ñaa ngi dem di bindu te balaa ñuy bind buñ bindoo ba pare dañ ko war a delluwaat mu war a ñëw yooyu c'est des yi yoo xam ne alerté nañ ci alerté at si bu problème amee nag buñ ñu wax ne waxuñ ko ñun nag li nekk suñu xel dinañ ko ba xam ne ëllëg si biir waxoon nañ ko. Mhm. au delà ci loolu euh, fi mu nii lan ngeen soxla réellement ngir mën a def seen liggéey ci ni mu waree. waaw loolu rek mooy suñu soxla loolu mhm. mooy suñu soxla mbay mi mbay mi daal fi mu nekk nii semence beeg intrant bi daal moom mooy suñu soxla na ñëw bëri sakkan da nga ba nga xam ne vraiment gars yi duñ ko mën a yëkkati ci yenn prix yi nga xam ne da nga maam baykat bi ëllëg liñ ci defoon dana ci lu ko gën a métti. bu boobaa rek da nga maam ñu jàmbale ci mbay bi ñaan dem yàlla da nga maam taw taw bu am solo da nga maam ñu am récolte yu baax da nga maam euh, muurloo ko da nga ñun ñëpp ñu dund ci da ak suñuy njaboot pour mën a régler suñu problème ndax euh, tartaru àdduna métti na métti bu nga xam ne fi mu nekk nii je pense que ne euh, neween bi ñu ngi ñaan daal yàlla indi ci xewal ba nga xam ne vraiment buñ demee ba ca pandaw ba ñu am nawet bu mucc ay bu nga xam ne baykat bi dana mën a sukkandiku ci loolu te nguur bi aussi mën ci jàpp ndax ne euh, traite ren bi vraiment traite bu bon bon bon la bu méttee métti si baykat bi ba léegi gerte gaa ngi des si àll bi léegi si biir ñu prévoir aussi li nga xam ne moom la ñuy ji buñ koy jaayee ji mbala ñu koy transformé ji ñu mën a xool naka lañ koy def ba mu nekk njëriñu baykat yi. Cheikh Tidiane Cissé jërëjëf may fàttali rek ne yow yaay secretaire général u baykat yi nekk ci bassin arachidier bi ñoo ngi lay jaajëfal bu baax a baax. merci beaucoup jërëjëf. merci beaucoup jërëjëf.